ñun suñu kuréel gi li ñu wax euh, fukki organisation la yooyu yoo xam ci transport transport terrestre li ñu waxtaanoon ba ko le 28 mars def communiqué jox leen ko jox ko presse bi wax ko fépp moo doon euh, comme président de la république wax na ni dafay 69 milliards def ko ci euh, marchandises de première nécessité distribué askan yi ñu ni interpellé nañu ndax kon ñun ñooy war transporter marchandise bob. moom meun na jënd mais mënul transporter ñu fab suñuy jumtukaay xayma ko ñun fukki organisateurs yooyu nga xamni yépp yëpp Mor ci kanam ñu ni état bi djébal nañ ko jaar nang ci suñu ministère de tutelle muy ministre de transport terrestre monsieur Youm mu bolé nok euh, ministère euh, bi nga xamni ne ñoo yore lii muy euh, fay. ñi nga gis am nañu camion yu chargé trente tonnes am nañu ay camion yu chargé. 45 tonnes am nañu camions yi sax yu chargé cinquante tonnes boo faboon nga xayma rek ni tay ji yaangi doon ñew di wut kula fay camion bu ci nek la wara mëna a jël par tonne rek buñ la ko fayee euh, xaalis la mais bobu xaalis lañu bëggula gagner ci coronavirus bi coronavirus bi liñ ci idi moy luñu am ñu def ko ci ndax ku ci def sa bop nga defal. tay fi ñu toll ci plateforme port autonome de Dakar bi indi nañ fi 82 camions ci waxtu yi ñu toll suñu camions ñi ngi fi tàmbali nañu nak liggéey bi depuis ci suba mais liggéey bi yéex na torop yéex gi sax d'ailleurs mo war tax ni ba léegi soit ba léegi chargé gu lu mat 20 camions donc lu mat 60 camions ñi ngi nek ni di xaar te ku ne xam na ni ak couvre-feu yi manœuvre yi après dañuy dem te lo xam ne mënoon nañ def lepp ñun tay ndax lool mo doon suñu yéene ñew tay ji 80 auto yépp yëpp chargé dem fukki camion ak juróom lañu chargé gum ci 82 conteneurs kon xam nga liggéey bi des na ndax ñun lan lan mëna am indi suñu outil outil yaangi fi ñom ño wara jël disposition ya ya war ba nga xamni tay ji heure bi waroon na fekk ñu tek fi assez de main d'œuvre ñu chargé oto yooyu dem. Euh, li am mooy fulal nañu ndax euh, euh, nangu nañu li nu yéné ñu def ko ba ñu programmé ñu tay woonu nu ni yeen pour sen programmation tay Thiès ngeen di dem ñu indi suñu 82 camions ñu commencer charger ñu bani charger ba légui nak mën a gunu am ñun rythme bi nu bëgg ndax xam nga ni camion nga téye ko fi defoo ci dara jox leen ko li doon gën mooy ñu yab ko mu dem del si yabaat kooku pertement la ci ñun di pertement ci nguur gi. gis nga gis nga bi nuy démarré ci suba cinquante la ñu démarré cause bu rafet bii moo tax ñeneen ñi ànd ci fii mu nekk mënuñu laa xaymaal ñaata camion la ñu am yoo xam ni ñi ci am yéene pour bokk ci mënuma ma laa wax ñaata la mais lu bare lool lañu doon. Je depuis ce matin nous avons passé 15 chargements pour encourager les encourager transporteurs yi bëgg appuyer justement euh, mais nous sommes sunu xel sunu sunu xol moy à askan wi donc l'idée nous nous ba sunu direction gracieusement gratuitement pour son donc nous ci xayma